na ci dem ñu dawal stop nga indi au conseil nga boole ko conseil économique ñu ne laal na quinze voire vingt milliards tur yi ñoo changé clientèle politique bi taxaw ne la dee ñun ñëpp fu ci ne da ñuy dugal ci bërëb ku ci ne di kaas ñoo doon xeex. loolu tant que mi ngi ci réew mii Amina suñu institution yi bu dem sa morom dikk ñoo ngi déglu suñu ministre bi nee na soose dinañu créer huit pôles. waaw waaw ñu ngi toog di xaar. pôle territoire waaw. pôle yooyu lan lay ne ñaata nit ñoo fay ne. huit pôles yooyu noonu su dikkee war a remplacer au conseil des collectivités territoriales même budget hmm. même effectif. lan mooy njariñu rationalisation bi ñuy wax par extraordinaire même bu doon moo ëpp njariñ conseil économique ñu ne dañoo sakkanal ñu indiwaat beneen tuddee ko neneen problème day dudd beneen bi nag mooy man day dëgg dëgg fa yàlla daal xam nga xam nga égoïsme tamit baaxul Amina Ndiaye xam nga luy égoïsme mm-hmm. maanaam yow say privilège sa biir la intéressé sa poche la intéressé mais intérêt wu réew mi intéressé wu ma mm-hmm. lii jëmale njiitu réew mi kanam intéressé wu ma man li ma intéressé man mooy man daal lu ma xoolee bagages yi di gën a fi ba mu dox toog muy dox. intérêt crypto personnel. mais yéen est-ce que xam ngeen lan mooy lan moo nekk ci am majorité xam ngeen li ci am majorité ñàkk am majorité te gars yi c'est normal ba ñu xeexee ba ni saay benn kilifa daf ñu dëj xam nga lu ma Aliou Sall wax loolu moom du sax secret parce que lu neex a wax la nee na boo gisee bi ñuy voté budget bi ma gar ci sama bakkan mais Ahmed on voulait une petite victoire non non non il fallait sauver l'honneur mais bureau municipal conseil municipal amatul bii wala bee yow yaa xam ne tojee sa boppu jinax point léegi ñii aussi il faut ñu jéem a am une petite victoire mais xam nañ ne bëri bu kenn mbaam la ñëpp xam nañ làmb ji fan lay jeexe jarul guddal koo xam ne yow am na prérogative bu bigam lay jël na car wax ji jeex léegi nag il faut nga nekk fi di langaa moo ko nangam sax mais nit ko amul majorité soose débat d'orientation budgétaire la la gars yi njëkk wan seen bopp ñu ne déet ni waay ñu ñëw ci vote ba commission des lois xam nga commission des lois soose affaire bi na lay demee gars yi dinañ ñëw toog mais képp koo xam ni bokkoo ci commission bi doo voté débat yeeg yëpp nag mën nga jël kàddu mais bu vote ba jotee ñenn ca commission ba dong ñoom ñooy voté loolu c'est dans toutes les commissions comme la ma lay léegi ñoom nag il faut ñu jéem a wane ne ak nappe ak ak wane ne daal ñun am na bagage suñu dese mais bagage suñu dese dese dese dese dese dese dese feebar fuy mujjee mais nit ko amul majorité au nom de Dieu yow nga bëgg say privilège nga bokk yeewi wala nga bokk benn wala fu mënti ne nga ne euh, non waa ji daal man naa xool sama intérêt rek mais ñoo xam ne du ñu la mais nan ngay doxale compliqué trop non jëloon intention voter la sax yow da war a gagné da war a ñëw confirmer ci assemblée nationale rawatina ñoo xam ni yow bii mooy deuxième fois boo indee ay bagages ñu dàq ca biti waaye léegi affaire nan lay demee ah. mais loolu est-ce que jar na sax nit ngi di ci yeddati président Diomaye wala <laughs> ñàkk majorité mën na la xañ yow yow soo nguur boo déggee ma ne la nguur mooy mooy le pouvoir la gestion du pouvoir par exemple tey boo nekkee maire nga minoritaire ci bureau municipal nga minoritaire au niveau du conseil municipal loo indi gars yi bloqué loo indi gars yi bloqué institution bi bu ñu ko bloqué xam nga fa ngay mujjee délégation spéciale. point bu yàlla dogalee na nga nga minoritaire mais yàlla suturaal la nga daje ak ngeen ñenn ñoo xam ne ni ñuy wooyee seen bopp ne ay républicain lañ mm-hmm. ñoom loolu ñoom ña ca gars yi ñooy ñooy ñooy jugé ne neexul ba neexul mais ñii nee nañu ñoom ay républicain lañ ñii nee nañu ay patriote lañ mais sincèrement ñi ngi koy ñi ngi koy jëfee ñun nous sommes minoritaires dans notre bureau la yeewi naa ko trois adjoints au maire onze adjoints sont de Benno mais mbir mi dafa yomb lii njortu nañ ne day doxal géejawaay liir le waaye le conseil municipal man damay tiitaroo yenn saa yi naan j'ai le j'ai le plus riche bureau conseil de du Sénégal Socé y trois maires de ville ci sama conseil municipal <laughs> loolu yombul de Socé j'ai presque une dizaine de députés actuels comme anciens députés j'ai presque une dizaine de maire j'ai des DG ay ñoom Modou Mamoun Ngom ak ay ñoom maam kii Modou Mamoun Ngom ak ay Racine Talla ak ay ak trois maire ville maire ville ñoo xam ne yow boo commencé di wax gars yooyu ñoom Bokar Sadiq Kane Cheikh Sarr ñooñu Aliou ñooñu nekk maire mm-hmm. mais débat ñëw indi ñëw teg kaay leen vous majoritaire bu dee dëkk bi moom moo lay intéressé ñëw leen ngeen liir fii mënul am lu dul jub jubal jubanti mënu ma fi wiiri wiiri wiiri wiiri que dee ñu ñëw mais ku am koo xam ne yow da nga minoritaire ay nit majoritaire ne la yow insha allahu rabbi doo gouverner waaw soo seet da nga am possibilité yow sans données looy xaar. wala ah man de ku ci jiitalu daal en tout cas daal sa intérêt wu bopp lu dul jiital intérêt wu sénégalais yii dagg nga naan sawaay yi dañ leen waxante dëgg waa ji nañ leen ko jàppale mu am majorité wax naa trois de quatrième bi soose mooy il faut mu am ñu sii su ndox amuñu lu ñu defi bu assemblée tasee. ah amuñu dañ koy nga ni. dañ koy bañ a wax xam nga xam nga man man. tuumaalu man tuumaalu benn député soose mais dama ne <laughs> soose. suñu politiciens yi yàlla ma yàlla jéggal. tudduma benn tur. Hmm, tuddoo kenn. consultant ngay dégg expert ngay dégg <laughs> euh, nu mu tuddati euh, lan euh, non homme d'affaires sax dinañ ne kii ci yenn affaire la ne. xëy na moom te amul benn mais dañ lay wax carrément ne la ñun ay consultant la en expert la en nangam mais ay nit ñoo xam ne ñun bi ñu juddoo ba léegi ci ëttu politique bi lañ leen xamee ñu ngi diggante assemblée nationale présidence de la république comme conseil euh, euh, dans les collectivités territoriales xamee wuñ leen jël table teg seen buntu kër di jaay soose bu doon yow da ngay jaay caaf sa buntu kër ci njaayum caaf moomu nga doon nekk di ci campagne sa bénéfice ba doon député mais soose boo nekkatul député doo delluwaat si sa njaayum caaf. Ah. wala lan moo ko fi jar ba mu war a jaral yenn ci ay député yoo xam ni ils étaient tellement arrogants ñàkk yar réew toroxal Ousmane Sonko jiin ko lu ne tey ñooñu ñoom ñooy def ñoo nekk les ngandi maamu buruxleur nga ni lantulen nii nii toroxal sa bopp yow ku la déglu ngay wax sax danga nga naan non c'est est-ce que àdduna jar na lii waaye soo see poste dafa jar yéen nii eh, lu ko fi jar yàlla moo tuddoon ne di nga nekk député ñaari at tuddul ne da ngay nekk juróomi at tuddul ne da am fukki at yéen seen bos bi dina dem juróomi at demaat juróomi at muy dix ans waaw mais soo see député yi dee na législature bii am na dese législature bi su ma juumalee am na ñaari dese treizième bi ba lay passé man sama cousine sama cousine boo xam ne ñoo bokk benn village Xadi Njaay waaw sama yaay ak papaam seen ñaari bàyyee bokk ndey ak baay député la woon APR ñi ko jëlee fii Ndakaaru yóbbu ko dëkk bu denc ko suul ko ci laa bokk lu ma defal borom bi ba mu bàyyi ma fi ba heure bi mais yow ñu ne assemblée nationale day tas bonjour lay daga <laughs> ngay jëfur war a ànd ak koo xam ne yow seen ànd bi ci boppam du naturel contre nature la mus musoo ko soutenir jëm ko ay paak tabaxal ko def ko lu ne bëgg a taxaw tey non mais quel privilège man de barke alxuraanul karim ni ñu ko amee woon soose noonu la ñu fa yàlla ji di jëlee ci xeex ci dignité xeex un combat un régime principe ñëpp xam ne kii lii moo taxoon moom muy xeex waaye mais ñàkk nekk député dafa nekk la fin du monde <laughs> wala. dëgg yàlla. non mais mais mais c'est terrible da ngay dégg nit ñëw taxaw ci rajo yi di wax après nga koy seetaan jabaram di ko seetaan doom yi di ko seetaan mais y a même pas sept mois ci présidentielles yi rek laa wax ci présidentielles yi mais yow nga yëkkati woon ay kàddu yoo xam ne lal ko ci ndoddug ñi nekk fi tey tey nga bëgg a gëmloo nit ñépp nit ñi lu yàlla sàkk ci kaw suuf ñoom ñoo la gën. am <laughs> ana dignité ana ngor soose dem nañoo dem a dem a dem ba buñ ne diw mii politicien la ñu ne cëm kàcckat yi réew mi ñoom ñoo fi dàq wor gën fi ñàkk wor ma gën alors que am na ñoo xam ne dignité moo leen di rey dañu xën di dëgg yow bu dee da nga ko xeex yow bon mais aussi ku ci nekk tam ak ni la fale bu dee da ngaa toogoon muy dox <laughs> toog rek ñu fekk la sa kër dugal li ci liste. ne la dugal naa ci liste position sangam. loolu dafa yomb trop am na ñoo xam ni am na ñoo xam ne dañ leen tànn seeni coalition parce que punkal yi leen tànn xam nañ ne noo diw nii il a mouillé la may ah oui xeex na ba dee le mérite ñu teg seen waa partie jiital la par contre am na ñoo xam ni sawaay politique de sommet la ñuy def boo nekkee ci kaw dend ak punkal bi moo xam Ablaye Wade la wala Abdou Diouf wala Senghor bu ñuy defar liste mais yow dangay ngay mujj obligé nekk ca kaw parce que yaa ngi moom chaque jour yooyu ne alors que à la base les militants ne te connaissent même pas xamuñ la leen waxante dëgg nag nañ leen waxante dëgg man puruxlu lu ko fi jar damay dama yéemu ci yàlla quoi sama deux jours yi deux jours yi mujjee assemblée nationale yëpp li may mën a wax yëpp buus bee laay nekke damay toog rek xoolal di di di xool ñii ñoo xam ne yow man yàgg naa fay def revue de presse ñooñu yónnee la message xas la. naan est-ce ñuy ñoom. c'est terrible ñu ñu xëy tenc. ñu xëy tenc. nit da ngay gorey boo nekkee ak Ablaye Wade euh, kii Ablaye Wade douze ans nekk ak Macky Sall fukki ak ñaar am ci ay privilèges mu xëy daanu ah du ma ne bul dem dafi say fu bopp de waaye ngalla ngalla ngalla ñi nga xam ne ñoo fi jëlee Macky sàll xeex ak moom ma ni saay loo fay def loo fay def. boo fa ku fa ku fa transhumé nga dem fa di warkat lañ lay jàppee te di nga yàq deret bi nga bokk toog leen waay. toog leen lii yàggul toog leen foo leen jëm. fi nga war a dem sax ñooy lànk am nañ fu lay. Ah, non mais attends nañ ñu may waaye yow gone jëlal léegi am nañ ci résultat de waaye PDS ya demoon ci livre blanc ba. ah waaw waaw. am na fu mujjee may ñu ci tuuti ma ñu mujjee. may ñu ci tuuti dañ koo yónni de. nga ne waaw. Ah, pourtant waxoon nañ ko fii keroog. ah ñu wax ko fii. ne kii lii mu def da ci am ndigal. koo yónni waaw keroog dañ doon laajte ne waaye PDS di di di di kii euh, waa ji Diop. Alioune Diop Alioune Diop.